asalaamaaleykum mbokki info 7 tv l'officiel ñu ñëw yéen ci xibaar bi sonko ak aji euh, am na lu yees nag ki lu xew ci mbir ma ñu ngi laaj daal kan moo filmé ba pare divisé euh, confrontation bi amoon semaine ba la ñu weesu euh, dans le bureau de du juge des doyens ci diggante aji sarr nga xam ne dafa accusé woon ousmane sonko de viol ak menace de mort di ko dëkku di dëkku daal maanaam jël bakkanam confrontation bi amoon ci diggante Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye son ex patron fële ci Sweet Beauty euh, salon bi nag euh, où se seraient déroulés les faits présumés euh, dernier soupçon bu accusatrice bi nag di Adji Sarr bu leader bu Pastef ak l'activiste bii di Françoise Hélène Gaye d'avoir respectivement ñu jël image yi nag et de les avoir ñu koy circuler réseaux sociaux yi ainsi renseigne les échos de ce vendredi moom nag porte na plainte eh, contre elle auprès du procureur de la république journal bi mi ngi xamle que ni avocat yu Ndeye Khady Ndiaye ñoom eh, déterminé wu nañ pare nañ daal pour ñu leeral mbir mépp donc les échos mu ngi signale aussi que le doyen des juges eh, moom mer na lool ci audience boobu nga xam ne dañ ko mujj gis sur la place publique maanaam ñu wisaare ko ci réseaux sociaux yi dans le bureau du magistrat nag euh, jour bi confrontation ci diggante Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye amoon na benn greffier bu fa nekkoon représentant du parquet ak avocat yi ñaari parti yi pendant un moment waaw euh, jëkkëru borom këru borom këru aussi Ndeye Khady Ndiaye moom it euh, ma nga fa woon kon daal mu mel ne mbir ma ñàkkul ñii ñu wax ci suuf kenn ci moom moo ko filme ba pare partagé ko ci réseau sociaux yi léegi nag dina leen toppal ba xam fu wànnent di mu jëkk ay gëtam